bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñoo ngi ñëwaat ak yéen ci jataay bi ñu baaxoo ànd ak yéen dimanche bu jot ci waxtu wi eh, di fas alu ahla dikri jotaay boo xam ne ay laaj ak tontu lañ ciy abal ci wàllu diine kon ñoo ngi ñëw incha allah ngir tontu laaj yi fi jotoon na rot incha allah. laaj bu njëkk bi mbokk mi koy laaj ñeena dafa dégg ñu ne. yowmal qiyaam julli la yàlla di njëkk xool te su baaxee rekk lépp bu baax su baaxut eh, dara du baax eh, mu ne it mu déggaat ñu wax ne jox nit aw ñam moo gën tabax ay jumaa muy laaj ba xam kon ñaari wax yooyu nan lañ koy dégg ndax kon jox nit aw ñam dafa gën julli walla déet tontu bi mooy eh, loolu mu njëkk a wax moom lu wér la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ci ab xadis ne li nga xam ne moom la yàlla njëkk a seet ci jëfi jaam bi yowmal qiyaam mooy julli su julli ga baaxee yàlla ne kooku kon texe na bu fekkee julli ko baaxut nag yàlla ne kooku perte na texe dina lu xadis la boo xam ne at yi ak Abu Dawud ñëpp génne nañ ko am na beneen riwaaya beneen xadis boo xam dafa wax ne bu yàlla xoolee julli ya gis na am na lu ca manqué yàlla na sama jaam bi day manqué le na xool leen ay naafilaam ba xam am na lu ko mën a mottalil julliyam déet boo tax ñu xool nag yeneen naafila yu baax jëf yu baax yi eh, lele eh, aw eh, aw ñam julli bu xiif ak yeneen jëf yu baax yi daal bu fekkee am na yenn naafila yu naan def yu baax ñu mottalee ko julli yooyee manqué ngir ma mën a texe loolu liñ ciy dégg nag moom mooy importance julli rek ak yàlla dafa wan ne dafa day wane ne moom la yàlla njëkk xisaab ci àq yi dox diggante yàlla ak jaam bi àq yi dox diggante yàlla ak jaam bi ndax xam nga xàq yi eh, ay xaaj la dafa am àq yu dox diggante jaam bi ak boroomam am àq yu dox diggante jaam bi ak moroomam àq yi dox diggante jaam bi ak boroomam nag moom la Yonent solo sa wax ne la ci yàlla njëkk a seet moom balaa xool dara mooy julli waaye bu fekkee àq yi dox diggante jaam bi ak moroomam la moroomam jaamam moom la yàlla njëkk rek la yoon xiyaam mooy tuur deret ñi daan tuur deret te loolu xadis bu wér wér boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na li yàlla njëkk a xool yowmal xiyaam ci diggam ak jaam mooy julli waaye li yàlla njëkk àtte diggante nit ñi ak nit ñi mooy deret tuur deret kon xadis boobu dàqantut ak loolu ñu wax ne ku leele ab jullit moo gën nga tabax ay jumaa loolu lañ ko wax ngir xemmeem lool nit ñi rek ne leel ab jullit bari na tuyaaba lool bari na ay ngëneel lool ndax jaamu yàlla gi gën ci jaamu yàlla yi mooy jaamu yàlla gi dellu gi gi njëriñ yi dellu ci nit ñi ndax tabax ay jumaa baax na lool waaye nag leel sa mbokkum jullit mu xiif aajowoo ko moom da ko ëpp tuyaaba da ko ëpp tuyaaba dañoo bëgg a wax ne rek daal li tabax di jumaa eh, di bari bari ay tuyaaba nga xool sa mbokk mbokkum jullit mu am aajo nga fajal ko ko loolu moo ko ëpp tuyaaba te loolu sax li ko gën a firndeel mooy eh, li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne wormaal ab jullit màggal ko moo ëpp doole sax di wormaal kaaba gi ak kaaba gi li muy màgg màgg waaw nag yàlla dafa fonk doomu aadama loolu kon la xa la eh, ñaari waxe noonu ñu ko mën a déggee rek bu njëkk bi moom day xemmem loolu nit ñi ci julli ak it di wane ne dafa am solo lool te moom la yàlla njëkk a fay bu ñaare bi nag nit ñi ci ne ginnaaw bu faratee jàllee nag ba naafile des ci moom naafile yi ci gën mooy yi nga xam ne dafay jariñ nit ñi njariñ li dellu ci ñoom loolu mooy naafile yi gën ci naafile yi wallahu taala laaj bi ci topp euh, Bachirou Dieng moo ko laaj nee na euh, koo xam ne danga amee waxtu julli euh, nga teew ci jumaa ji bisu ajjuma ñu war a julli ajjuma ñu dem bay taxawal ajjuma te yow nga am baru julli nan ngay def ndax dangay fay sa baru julli ba noppi wala boog dangay ànd ci julli ajjuma gi bu noppee nga doog a fay bor ya waaw bu dee ci ngirum imam malik ak ngirum ñoom dañ ne ay julli soo ko amee te matul juróom moom bala ngaa julli genn julli danga koy julli ba pare ndax dañ ne nga tegale leen ñoom loola waajib la dafa war danga koy tegale ba fay ko ba noppi doo ko julli geneen julli ñoom dañ ne même bu fekkee waxtu wii teew day jàll sax teewul moom dangay ngay julli ya nga eh, yara faatoon ba noppi loolu mooy ngirum Malik ak Xanafiya eh, bu fekkente ne nag ngirum Shafi'i la ak ngirum imam Ahmad ñoom dañ ne bu fekkee da am boru julli mu am julli gu teew waaye julli ga teew nag xat na ba nga xam ne soo ko maanaam soo doon fay boru julli bi nga amee kon julli gi moom dina bu demee noonu moom kon da nga njëkk julli gi teew ba noppi doog a fay ya nga kon wuute moo ci am ci diggante borom xam-xam yi koo xam ne ngaa bokk ci ngirum Malik daal. bu fekkee lii moo la daal moom kon dangay njëkk a fay bor julli ba noppi su ko defee boo noppee bu fekkee fekk nga dara ci ajuma ja baax na même bu fekkee ab rakka la buñ selmine nga mottali sa benn rakka bu fekkee raw na la nag buñ noppee nga julli tisbaar wallahu taala am euh, laaj bi ci topp soxna Awa Guèye ca Louga moo ko laaj mu ne jigéen ji nga xam ne dafa am boroom kër mu séq ak moom mu wéet ak moom yoon wu njëkk wi deret jooju nga xam ne mooy génn ci e, sawukaay ku jigéen gi ndax deret jooju dañ koy jàppee comme dereti régal moom dereti mbërëk wala déet maanaam ndax daal bu génnee day tee julli ak woor wala déet déedéet e, deret jooju nga xam ne mooy génn ci jigéen ci boo xamee ne e, am na borom kër ba mu moom yoon wu njëkk deret jooju moom du duñ ko jàppee dereti mbërëk dëgg la soobee la comme deret yëpp sobe la comme deret yëpp fu mu la taq da ko war a dindi da ko war a fomp raxas ko bala ngaa julli waaye nag jamono yi muy génn moom doo duñ la jàppee kuy gis mbaax moom bu dee jamono julli la da ngay julli bu dee jamono koor la itam da ngay woor deret ji saa yu génnee rek balaa ngay julli moom na ko fomp ba mu set mbaa nga raxas ko euh, te julli bu dee koor la itam moom du la yàqal dara mën ngaa woor waaw bu fekkente ne nag nit kii deret ji génn te arrêté wul. bu dem ba waxtu julli jot na yeex a julli na yeex a julli gi bàyyi ba waxtu waaja jeex ba xam dara dina arrêté am ngeet bu demee dem nag ba waxtu yi waaj a jeex te arrêté wut na wut ay morso euh, jiital ko feex daal ba dara ji du seen du génn fenn boo ko mu def lam man te julli waxtu yooya loolu lañ koy wax wallahu taala laaj bi ci topp soxna Faatu Silla ca dakaar moo ko laaj mu ne jigéen ji nga xam ne dafa sangu farata ba noppi ginnaaw ba mu toog di diwu bi muy diw loxoom laal ab sawukaayam ndax kooku day baamuwaat cangaay la wala ndax day jàppaat rek waaw kooka euh, cangaay la moom du ko baamu ndax càngaay li koy waral moom mooy euh, jana ba wala deret ju génn dereti mbaax euh, kon loxo bu laal sawukaay rek loolu moom du waral cangaay bu fekkee jigéen la sax li gën a wér moom mooy li fekk dugalut baaraamam ci biir sawukaayam moom du jàppaat du loolu du doon jàpp bu fekkee dafa laal ci kaw rek loolu tujutum jàpp bu doon góor la moom la ñuy wax ne bu loxoom biir loxoom laalee sawukaayam moom day dem jàppiwaat waaye bu fekkee jigéen la moom li gën a wér ci waxi borom xam-xam mooy li fekk dugalut baaraamam ci biir loolu du yàq am jàpp kon kooku doon diwu loxoom laal sawukaayam bu fekkee doxo ba duggut te biir rek eh, du yàq cangaay la du yàq itam jàpp la wallahu taala laaj bi ci topp Murtada Jaañ moo ko laaj mu ne e, imaam bi nga xam ne da doon julli ba àgg ci béere boobu sujjóot mu sujjóot te maamoom yu topp ñu ko ndax maamoom yéen seen julli dana seen julli dana baax wala déet ak ndax dañ ko war topp wala déet waaw boroom xam-xam yi wute nañ ci loolu imaam bu dee julli jàng aay yu ñu war a sujjóot ba mu sujjóot ndax farata ci maamoom yu topp ko wala déet eh, li gën a wér moom mooy maam dañ ko war a topp farata la fañ wóote nag moom mooy ndax ku ko toppul sa julli dina baax wala déet am na ci borom xam-xam ñu wax ne koo xam ne toppoo ko te fekk la tax toppoo ko moom ngànt la mooy danga koo yëgut wala xamoo ko woon ba tax toppoo su boobaa sa julli moom du yàqu waaye koo xam ne nag danga koo toppul te fekk yaa ko tey moom sa julli day yàqu loolu Euh, benn wax la ci waxe borom xam-xam yi am na it ñu wax ne moom topp suñ na rek la waaye nag ku ko toppul tam même bu fekkee yàqu rek itam sax julli du yàqu waaye nag li gën a wér moom mooy imaam ba su jootee euh, nga topp ko ci su jot ba lu mu def nga def ko ki nga xam ne nag dafa am ngànt nag ba su jotul moom kooku moom ak julleem baax na ki nga xam ne nag euh, amul lenn ngànt waaye moom daa toppul imaam rek ci tayeef Euh, li gën a wóor mooy bu imaam sëlmalee mu waa julli googee loolu moom moo mooy li gën a wóor donte am na ñu wax ne moom julleem dina baax ndax sujjóot bi nekkut sujjóotu farata waaye nag li gën a wér ngir daw euh, wuute yi ci am tax dañ koy dénk bu fekkee moom moo ko tey toppal imaam ba imaam sujjóot ba siggi euh, na eggale julli gi mook te bu noppee mu baamuwaat julli gi loolu moom mooy li gën a wér gën a wóor wallahu taala laaj bi ci topp Babacar Dieng moo ko laaj mu ne daa bëgg ñu waxal ko eh, dara ci eh, njariñi ayatul kursi yi ayatul kursi yi eh, benn aaya la bu nekk ci alquranul karim di suratul baqara aaya bu bari ay ngeñeel la yonente bi sallallahu alayhi mas naa wax benn saxaaba ne ko ndax xam nga aaya bi gën a màgg ci alquran saxaaba mu ne ko wax ma ko mu ne ko mooy allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la taxuduhu sinatun wala nawm ba mu jeex te mooy ayatul kursi yi wax na it moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne koo xam ne julli farata gune boo ko jullee ba noppi di nga jàng ayatul kursi ba mu jeex kooka day faatu rek moo ko tee tàbbi àjjana loolu xadis la bu wér boo xam ne an-Nasaa'i ak uh, Tabaraani ñëpp génne nañ ko uh, ba tey moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne tam ismullahil azam muy tur yàlla wi gën a mag ci mboolem tur yi yu gën a màgg ci mboolem tur yi nee mu ngi ci ñetti saar yii te mooy suratul baqara ak suratu ali imran ak suratu taha loolu xadis boo xam ne ibnu maaja génne na ko euh, lenn ci borom xam-xam yi nag nee ñu lam ci jublu mooy allahu laa ilaha illa lam jublu ci euh, ismul azam moom mooy alxayul qayyum alxayul qayyum ndax dafa ñëw ci ñetti saar yooyu mu wax yépp euh, bu njëkk bi mooy ayatul kursi allahu laa ilaha illa huwa alxayul qayyum bi ci topp itam mooy Eh, aaya bi nekk suuratul Ali Imran te mooy allahu laa ilaha illaa al-hayyul qayyum ñetteel ba itam mooy aaya boobu nekk suuratu Taaha te mooy wa'anatil wujuuhu lil hayyil qayyum eh, kon da ngay gis ne kon al-hayyul qayyum te mooy al ismullahi al-a'zam mi ngi ci aayatul kursi loolu kon ba tey da koy yokk ngëneel bokk na ci aay yëntu daal ñaan jàng di ko ñaan di ko léemoo moo xam suba ak ngoon la moo xam guddi la buy tëdd yooyu aay boobu bokk na ci mu daan yim daan jàng ngir di ko léemoo kon aaya la yoo xam ne yu bari ay ngëneel la waaye loolu lañ ci mën a wax wallahu taala laaj bi ci topp tafsir Muhammad Welaan moo ko laaj mu ne e, ki nga xam ne dañ koo raw ci ak julli waaye imam bi am gànt dal koy ñor di ngir mu àggale julli mbooloo mi e, naka la koy àggalee ndax moom dañ koo rawoon ci julli gi moo tax laaj boobu jaaroon na fi ci e, jotaay bi jàll wala boog ba ko jiitu Euh, kooku ni muy def moom mooy bu jullee ba mottali julli ak imaam ba maamoom yi nga xam ne ñoo ñoo tàmbalee ndowoon julli ak imaam ñoom buñ matalee eh, borom xam-xam dañ cee séddale ko ñaaree wax ñii dañu ne dañuy toog xaar seen imaam bii nga xam ne moom la ñu wuutal te ñu raw ko dañuy toog xaar ko ba mottali ak julleem ba sëlmal ñu daal di sëlmal ginnaawam am ñu wax ne. imam bi ñu wutal moom bu taaya taaya ju mujj rek ba jóg di àggale ak julleem moom maamoom yi comme neex nga sëlmal euh, li gën a digg doom nag mooy maamoom yi nañ tànn loon ci neex def maamoom yi daal nañ tànn loon ci neex def bu la neexee sëlmal bàyyi imam bi mu jóg mottali ak julleem ndax dañ ko war a woon su leen neexee itam ñu toog xaar ko ba mu sëlmal ñu doog sëlmal ginnaaw luñ ci def rek incha allahu dina baax allahu taala euh, laaj bu ci topp soxna Amina Mbay moo ko laaj mu ne euh, ki nga xam ne dafay liggéey métier maçon ndax dagan na ci moom muy tabax ab kanisa wala déet déedéet loolu daganut euh, jullit daganut ci moom muy tabax béréb boo xam ne dañ fay jaamu yàlla jaamu goo xam tegoo ci lislaam ndax yàlla nee na Eh, diine ca moom mooy lislaam te képp ku koy jaamoo jenn diine ju dul lislaam du la ko nangul rawatina kanisa yooyu nga xam ne ña fay jaamu yàlla dañoo am pas-pasum ne yàlla dafa am doom dafa am soxna yàlla ñett la ak yu mel noonu eh, yu bari yu sariyaan araamal tam ñoom araamut ci ñoom lu mel ne sàngara weddi alquran ñooñu di leen tabaxal ab béréb bu ñuy dajee luñ fa mën luñ ko mën a tuddee loolu daganut ndax day dugg ci kaajarab wala taawanu alal ismi wala udwaan maanaam day dugg ci kaajarab dimbalante ci mooy yàlla te yàlla dafa waxoon ne wala taawanu alal ismi wala udwaan ci ay bàkkaar ak ci ak noonu kon loolu daganut wallahu taala euh, laaj ci topp Moustapha saar moo ko laaj mu ne ku doon julli fàtte ab sujjóot ci ab rakka ba dem ca rakka ba ci topp nan lay def waaw ku fàtte ab sujjóot ci benn rakka moom rakka boobu da koy bañ a complété ci jullik da ko ciy bañ a booleeti da koy génnee day sànni rakka boobee su ko ba ca toppoon nag mu remplacé ko ko bu jullee ba noppi andi rakka ci misaal ko doon julli tisbaar julli benn rakka fàtte ci ab jóot dem ba ci ñaaroon rakka mu doo ko fàttaliku na jàppe ñaareel boobu muy rakka bu njëkk tam sànni rakka bu njëkk bañ koo complété su ko defee mu indi beneen rakkaam ñaareel jàng ci faatiya ak saar toog taaye bu noppee doo ko julli yeneen ñaari rakka sëlmal te boo jullee ba noppi ba sëlmal ba pare mu sujjóot ba'da salaam mu salaam kon daal tënk-tënk bi mooy saa yoo bàyyee ab farata moo xam rukkoo la moo xam sujjóot moo xam faatiha la ci ab rakka rakka boobu da nga koy sànni andi beneen rakka boo ko wuutale boo ko remplacé te boo noppee nga sujjóot ba'da salaam wallahu taala laaj bi ci topp Fatim Ndiaye ca Touba moo ko laaj mu ne jëmma ngi joo xam ne dafa amoon gan duñ ko defal ak lekk def ci tooke wala daal du koy lor eh, fekk na bi mu koy def nag am na beneen xarit na mu ko waxoon waaye xarit boobu mu ko waxoon nag bi ñëwee moom mu wax ko ko ne ko ñoom bi dañ koy def nangam bu ko lekk mu laaj ba xam ndax kooku lam def eh, day dugg ci cadre eh, rambaaj jaxasa ay nit wala boog di dugg ci cadre laabir te yàlla tax waaw kooku lam def moom la war a def su noppi woon sax defu ko day am bàkkaar ca loola ndax moom gis na kuy lor mbokkum nitam mu noppi ca bu noppi woon ba kooku lekk posan ba ba dara dal ko ca moo ko def ñuy bokk bàkkaar bi ndax gis na ko te waxu ca kon lam def noonu la da ko war a wax ndax loolu la yàlla digal ci jullit ak moroom jullitam te mooy di laabirante di laabirante di yente eh, ci lépp loo xam ne lu ko jariñ la nga xam ne ko sa mbokkum ji nga wax ko ko lépp lu koy lor itam nga xam ne soo ko ko waxee mu mucc ca nga wax ko ko kon loolu moom mooy la mu war a def loolu moom jotewut ak dara rambaaj du rambaaj waaye laabirante ci ngir jëm yàlla la ci dugg ak dimbalante ci eh, ci maanaam ci njekk ak ci lu baax wallahu eh, laaj bi ci topp moom Ousmane Saliou Seck moo ko laaj nee na kii da eh, tukki yéene woon a wàññi bi demee nag ba ca yoon wa mu ñibbisiwaat te waxtu mu waroon wàññi moom jëllagut waxtu yu ba léegi mi ngi fi def naa waxtu wax na moom la mu laaj ba bu ko julli ndax da koy julli matal ko wala da koy wàññi waaw bu fekkee dellu si waat na day te ko woon te itam waxtoom jëllagut moom kon da koy matal loolu moom mooy li gën a wér wallahu taala am laaj ci topp ba Mbay moo ko laaj mu ne kuy naafila julli kuy julli julli naafila eh, ndax dagan na ci moom mu yelu ko même bu dee guddi la waaw loolu dagan na naafile moom la sa gën mooy bu dee bëccëg la nga yalu ko bu dee guddi la nga biral mooy jàng ca kaw waaye nag koo xam ne danga eh, yelu fu ñu waroon a biral tam ci naafile moom dara du la ca loolu daggan na kon daal kuy naafile moom bu la neexee def bu la neexee biral bu neexee yelu donte yàlla biral gi moom ci guddi moom moo gën waaye boo yeloo tam du tee mu baax insha allah wallahu taala eh, laaj bi ci topp awa cuun moo ko laaj mu ne lan moo tàqale diggante listixaar ak seetlu ak ban mooy listixaar bi dagan ak listixaar bi araam listixaar bi dagan mooy bi yonent bi sallallahu alayhi wa jàngale ne képp ku bëgg a dugg ci mbir da nga julli ñaari rakka wala ñeenti ràkka boo noppee nga jàng ñaan goo lañ koy wax mooy yàlla maa ngi bëgg dugg dugg ci mbir mii yow yaa xam man xawuma yow yaa man man mënuma bu fekkee lii moo gën ci man gën ci sama diine gën ci sama àdduna euh, nanga ma ko yomb dalal te jàpp ndal ma ko bu fekkee ne gënu ci man gënu ci sama diine gënu ci sama adduna itam nanga ma ko uh, fànqal te wutale ma lu ko gën daale bàyyee ak say say mbir ak sa borom boobu mooy listixaar bi dagan bi araam nag moom mooy dem ci koo xam ne di mën ko ay jinne eh, di ko xooloo ba xam lii ngay bëgg a def baax naam déet su ko defee jinne di ko xibaar ay xibaar mu la koy wax te jinne mën nañu wax dëgg mën nañu ba bañ wax dëgg itam boobu moom mooy bi kon li leen tàqale ñoom ñaar daal mooy bii ki koy def da koy teg ci sunna teg ko ci njàngalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam bee nag ku koy def moom day wuute ak njàngalam yonent bi ndax day dimbali ko ay jinne ak ay seytaane yoo xam ñoo koy xibaar lu ñëwagut su ko defee mu koy gëm boobu moom mooy bi araam wallahu taala laaj bi ci topp maam góor sëy eh, moo laaj mu ne kii dafa am soxna eh, jóge ci tukki ñëw sëy ak jigéen eh, te xamu woon ne ma ginnaaw mu doog a xam ne ma lan mooy àtte bi kooku àtte bi dara wóor ci gannaaw ma rek moom ñàkk ga mu ñàkkoon xam ci tàmbale moom du ci def benn jeexit wallahu taala laaj bi ci topp mbay xumma ci dakaar moo ko laaj mu ne ndax dàggal na ci nit ki mu am soxna benn soxna dem ba yàgg mu uh, fase maanaam dafa am ñeenti soxna eh, dem ba yàgg mu bëgg a takk keneen daal di koy daal di fase kenn ngir takk uh, keneen loolu moom daggan na ci charia eh, doonte gënul gënul waaye nag daggan na yàlla mi ngi koy wax ci alxuraan euh, di wax na bu ngeen nammee remplacer soxna ci place soxna te fekk ku njëkk ko ngeen mayoon ko ay ay hadiya yu bari ay cadeau yu bari nee na cadeau yu bu leen ko jël ci moom na ko ko bàyyee ndax li muy bañ mooy ngeen di ko jël ngir di ko duural maanaam di ko wax lu amut ngir di ko sikkal ndax rek bëgg a nangu alal ya kon loolu li liñ ciy dégg moom mooy loolu dagan na doon dëgganut waaye moom dagan na wallahu taala laaj bi ci topp fàllu kan moo ko laaj nee na ndax dagan nañu suul ab chrétien ci armeelu jullit wala déet déedéet loolu daganut ab chrétien kenn waru ko suul ci ci armeelu jullit comme ni nga xamee ne kenn warutu suul ab jullit ci armeelu chrétien wallahu taala am laaj bi ci topp Cheikh Diop yi daru mënaan moo ko laaj muy laaj wax yàlla ji mu wax doon nettali xisab sayidna ibrahima alayhi salaam ak doomam ja falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qaala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara ba aaye jeex yàlla dafa wax ne euh, moom ibrahima alayhi salaam dafa tëdd euh, di nelaw gént yàlla wax ko ci ay nelaw ne ko euh, sa doom ji day dama bëgg nga ray ko ibrahima ba mu xëyee nag mu koy nettali doom ji ne ko inni arafil maanaam anni asbahuk dama gis ci samay nelaw ne daal dañ ma digal ma ray la léegi nag fanzur ma sa tara mooy xoolal lu ci sa xalaat wax wax ma lu ci sa xalaat doom ji ne ko yaa yow sama baay ifal ma tu umar defal li la yàlla digal defal li la digal te soo ko defee itam sa daju di ni insha allah min a sabirin danga ma fekk may nekk ku muñ dinaa muñ dinaa nanga dogalu yàlla kon aaya bi day nettali xisab ibrahima ak doom ismaila ci bi ko yàlla digalee mu ray ko mu wax ko doom ji doom ji d'accord ci daal di nangu dogalu yàlla te gëm ko ne ko defal la yàlla digal loolu rek la aaya di wax ci tënk wallahu taala laaj bi ci topp Iba Mbay ca waalo moo ko laaj mu ne wax yàlla ji mu wax ne in haada la fi suxufi l ula suxufi ibrahima wa moussa lan lay teg waaw lool li muy tekk mooy yàlla dafa wax ay wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm, da na nettali ay wax yu bari wax ko wax yu bari ba noppi nag ne ko lii ma la wax nag mi ma nga waxoon naa ko ca téere ya ya jiitu woon téere ya la jiitu woon téere yonent yi la jiitu woon te yonent yooyu mooy ibrahima ak moussa laaj bi ci topp matarloo moo ko laaj nee na kii de doon jàpp dem ba ci digg ba ndoxam jeex mu dem wutiwaat ndox ndax bu ñëwee day tàmbaliwaat njàpp mi wala day eggale bu fekkente ne bi ndox mi jeexee ak mu amaate ndox yàggut euh, day continuer am jàppam bu fekkee yàgg na nag ba cër yi fendi su day tàmbaliwaat njàpp mi wallahu taala am euh, laaj bi ci topp euh, Abdul Xaadir Xumma moo ko laaj mu ne jigéen ñi nga xam ne dañuy araam nit ki ba faw ñan la waaw jigéen ñi araam góor ba faw mooy e, jëpp jigéen joo xam ne xas nga ko takk doomam dalay araam ba faw képp koo xas takk itam yaayam dalay araam ba faw ku mel ne wajur wu jigéen itam day araam góor ba faw ay rakkam ak ay magam jigéen ak ay doomu jigéen noonu ñum nàmbandool itam ñu jigéen ba tey dañu koy araam ba faw wallahu taala laaj li topp Modou Cissé moo ko laaj mu ne Eh, lan mooy àttab kuy julli sa awra yi feeñ ndax ku julli sa awra feeñ dangay baamuwaat julli ga wala déet waaw borom xam-xam dañuy séddale awra ci ñaari façon dafa am awra bu diis ak bu oyof bu dee bu diis ci ngiru Malik ci góor mooy eh, sawukaayam ak fi muy demee woon ci ginnaaw ñaar yooyu lañ wax ne moom mooy awra bu diis boo xam ne bu góor jullee muy feeñ day baamuwaat julli ga bu dee jigéen la nag awda yu diis yi moom mooy ñaare yi ma wax ak it euh, ab dënnam ak doqam ak ay weenam yooyu mooy awra yu diis yoo xam ne moom saa yu feeñee euh, maanaam day baa moo jullik jullik du baax feeñ googu nag nee ñu mooy bu fekkente ne moo ko tey bu fekkente ne maanaam moo ko tey waaye bu fekkente ne teyu ko feeñ ko teyu ko tey itam yàggut su boobaa dañ ko ko jéggal waaye yii moo wax daal bu fekkee dafa feeñ ñi koy julli mu feeñ te fekk moo ko tay sangu ko moom julli ko du baax da koy baax mu waat waaw loolu mooy li gën a wér ci ngir imam Malik nga xam ne même bu ko jullee ba noppi tam ba waxtu wa jàll mu um, doog koo yëg day baax mu waat julli ko day baax mu waat julli ko kon bu ko teyee julli ko yàqu na bu ko teyut nag moom julli ko du yàqu bu fekkente ne lam feeñ yàggut wallahu taala euh, laaj bi ci topp Mouhamad bay ca Touba moo ko laaj mu ne lan moo tàqale diggante fasam sunna ak fasam biddaa fasam sunna mooy dañuy bëgg kuy fase sa soxna nga fase ko ci ak làpp goo xam ne sëyoo ci ak moom te it nga fase ko benn yoon fasam biddaa nag mooy ku fase sa soxna ci jamonoy eh, yi ñu gis mbaax wala boog nga fase ko ci ak laab goo xam ne sëy nga ak moom wala nga fase ko lu ëpp benn yoon mbaa nga fase ko eh, ay baat yu bari ci benn jataay yooyu muy fase biddaa ñaar yëpp nag bu ci waaye def téwul fase moom tàbbi na waaye bu dee bu mujj bi nga xam ne façon bi daam ku ko def da ngay am bàkkaar ci loola waaye du dee moom façon bi a tàbbi wallahu taala euh, laaj bi ci topp euh, soxna Ndey Faama Jóob moo ko laaj mu ne dafa dégg ñu ne jigéen bu seeg borom këram dafa war a takk boppam dafa war a muut boppam ba noppi itam daa war a ànd akum jàpp muy laaj ba xam ndax lu wér ne wala déet loolu nekkul lu wér loolu nekkul lu wér amul cosaan ci diine jigéen buy seeg ak boroom këram am na droit ci summeeku ba set dindi boppam itam muri ab boppam waaw eh, njàpp li itam du ci sart eh, waaw loolu itam kenn waxu ko dëgg la sopp nañ kuy tëdd mu jàpp maanaam buy nelaw mu nelaw walla am njàpp waaye kenn waxul nag ne jigéen buy seeg borom këram sopp nañ mu jàpp lool moom saxul ci diine amul cosaan wallahu taala eh, laaj bi ci topp imam mbay ñaan moo ko laaj mu ne kuy jàng alquran baag ci biir bu sujjóot fekk nga sol ay dàll ndax man ngaa sujjóot ak dàll yi wala boog da ngay summi dàll yi doo ko sujjóot waaw dàll yi bu fekkee laab na mën nga koo sujjóotaale ndax ay dàll eh, dagan na sax julliwaale ko bu fekkee sobe newu ci bu fekkee sobe newu ci ay dàll mas na ko julliwaale kon nag gannaaw mas na ko julliwaale moom kon moom mët ta wax kon eh, bu fekkee laab na daal mm, moom insha allah mën nga koo sujjóotaale ndax la tax nga yor ko di jàng alxuraan ak ma wane ne kon mën nga koo sujjóotaale ndax boo amoon sobe doo ko sañoo sol moom daal lii ba noppi di jàng alxuraan kon lu ma tontu bi wallahu taala laaj bi ci topp nooru kan ca Fuuta moo ko laaj mu ne eh, yi nga xam dañ koy lekk mu ne lu mel ne xar ak bëy ak eh, nag ak yooyu nee seeni dem àll ak seenum saw ndax laab na wala déet waaw lépp loo xam dañ koy lekk loolu ay dem àllam ak am sawam moom laab na wallahu taala alam kon dafa mel loolu moo fi ci doon ñëw ci ay laaj yal na yàlla may dégg ak topp te dafa ñu tawfeex nangul ñu asalaamaaleykum wa waaw mu laaj bu ñu fàtte woon mooy eh, mbokk mi doon laaj ki nga xam ne doon jënd am xar eh, bi mu demee waxaaleeg eh, borom mi bañ juboo mu génne xaalis bi nar a fay far xar mi lekk xaalis bi mu laaj ba xam ndax borom xar mi day fay xaalis bi wala bopp borom xaalis bi mooy ñàkk li gën a mooy borom xaar mi day fay ndax alal nit ku ko yàq danga koy fay te moom am xaram moo ko yàq loolu nag mooy bu fekkente ne moom mm, dafa def ak càgganteem moom borom xar mi ba xar mi lekk xaalis waaye bu fekkente ne borom xaalis moo am ak càgganteem nag bëgg nit xaalis bi ba euh, xar mi lekk ko ci lu dul borom xar mi di ko yëg su moom li gën a wér mooy borom xaalis moom mooy ñàkk kon pour ñu xam ba xam kan mooy ñàkk dañuy xool ba xam. lan moo sabab xar mi lekk xaalis bi bu fekkente ne càggante gi ci borom xar mi la jógee borom xar mi fay bu fekkente ne ci ki yoroon xar mi la càggante gi jógee eh, su boobaa borom xar moom mooy ñàkk wallaahu taala